sur Sud FM. asalaamaaleykum xarit yi ñuy déglu leer na ba noppi kon ci kàddu yooyu la ñuy daal di euh, door li nga xam ne nag mooy numéro bu njëkk atum 2020 ci li nga xam ne nag mooy euh, seen émission pencum euh, Senelec pencum Senelec daal di nag dooraat ak ànd bi ak Sud FM seen rajo. ñuy am mbégte di nuyu suñuy nag auditeurs yi ñuy topp ci 98.5 Dakar waaye itam réseau synchronisé bi ñu àndal euh, yëpp ci Sénégal ba ci sax internet bi tey jii ñu ci dalal ki nga xam ne nag mooy secretaire général bu Sénélec mu ngi wuy ci turu Moussa Dieye Moussa yi ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Ba Baye Omar ñu ngi lay nuyu di la fay di nuyu auditeurs yi ñuy déglu si rajo yi ak seen ensemble de réseau de Sud FM. ok euh, Moussa Dieye euh, laataa ñuy tàmbale ñu fàtte ne euh, collaboration bu yàgg la ngir rek servir askan wi nga xam ne ñooy jëfandikoo wàllu courant bi buñ ko doon. wëyal mën nañu wax ne sax bii moo naroon nekk ñeent fukk ak juróom-ñaareelu euh, ah. numéro bi euh, ci bañ ko dooree ak euh, léegi mu nekk nag lëkkaloo boo xam ne yàgg nañ ko daal di nag def boo doon nuyu askan wi daal di dellusiwaat ci kàddu yi njëkk yoo leen di dalal naka nga koy dooree laataa ñuy dugg sóobu nag ci question yi. waaw xanaa commencé sant nit ñi di leen gërëm di leen nuyu di jégalu aussi peut si. temps bi Senelec def yëpp te émission bi amul woon parce que comme ni nga ko waxee euh, émission bi yàgg na bu yàgg lañ ko commencé man mii ngay gis nii nekkoon naa fi directeur commercial et de la clientèle ñëw naa fi plusieurs fois man ak ñeneen ñoo xam ni ci Senelec lañ doon liggéey euh, li taxawoon Senelec def ko mooy Senelec dafa gis ni comme yeneen sociétés yi dafa war a wax ak ay client wax boo xam ni kenn du nekk si diggante moom ak client bi client bi mooy wax Senelec tontu. kenn du am kuy tekki kenn du am kuy jottale jottali euh, ñu dem ba si biir nag ñu am ay jafe-jafe si biir Senelec nga xam ni ñun sax bu ñuy wax nit ñi dañuy xam ni euh, ay lay yi rek la ñuy def parce que problème électricité bi bare woon na courant bi doyul coupure yi bare na réclamation yi bare na euh, ñu gis ni nag li gën mooy au ñu toog di wax topp di wax noonu dem liggéey ñu liggéey ba taxaw mu taxaw ba nga xam ne nit ñi gis nañu firnde nañu li ñu gis si yokk yokkute tey si qualité bi ak quantité wu électricité bi ñu dooraa ñëw wax ak nit ñi léegi boo xoolee si diggante bi ñu fi mu jéeg léegi Senelec mën naa wax ni eh, fii at si gannaaw courant bi doyul woon courant bi doyul woon parce que machines yi doyul usines yi doyul carburant amul woon boole si réseau bi màggatoon na te doyul indi woon nu si client bu nekk bu nu jëlee at bu nekk boo jëlee bis yi nga xam ni courant bi dana coupé si loo xam ne si Senelec moom mooy moom si Senelec la jógee jëwul si courant bi mm-hmm. dañ daan wax ay fukki fan ak juróom fukki fan ak ñett wala fukki fan wala juróom-ñeenti fan par at xam boo boolee li ngay toog si bis yëpp doo ko boolee dana toll mm-hmm. léegi si diggante bi ñun Senelec def noonu xaas bu bare si si réseau bi mm-hmm. indi nañu centrale yu bees indi nañu solaire indi nu yeneen jumtukaay yoo xam ne pour joxe courant bi doy donc usines yi doy léegi macha te euh, usines yi changé nañu leen aussi am na solaire am na vent am na lépp loo xam ni daal mën na indi courant bi. Mm. boole nañ ko si aussi. Mm-hmm. changé réseau bi. réseau bi yokk ko yow boo xoolee dakaat nii ak yi régions yi. Mm-hmm. fenn fu nekk gas nañu fa poste yi bare na. Mm-hmm. pour que réseau bi yeggee fu nekk. mais bu benn réseau yi ñu am beneen boo xam ni mën nañ ko doxal le temps que ñu dépanne lii. loolu indi ñu si fii ñu toll nii. si at yi ñu toll. boo xoolee xayma compte euh, client bu nekk ñaata yoon lañ koy couper si at mi matul 17 minutes maanaam boo jëlee at mi yëpp boo boolee li ngay toog mhm. en moyenne si ay client mhm. matul 17 minutes mhm. waxuma nag benn client du toog lu ëpp 17 minutes mais boo joolee xayma at li am si li si minute si at mi nga xam nga xayma li am si minute si coupure yi boo leen teq boo leen boo leen boolee du mat 17 minutes pour te dire avancement bi am si avancement boobu mooy nit ñi ñun léegi nekk nañu à l'aise pour ñu wax ñoom parce que qualité bi baax na. Mhm. daf nañu fi ay yoo xam ni léegi temps bi ñu daan def pour ñëw boo amee panne ñu ñëw xool panne bi fu mu toll nga xam ne dugg fii génn fii seet fii coupé fii yu ngeen xamul. Mhm. léegi dañu am appareil électronique yoo xam ni dañu ko installé. coupure bi bu nekkee fenn rek sunu agent yi dañuy ñëw xam exactement fan la. bu ñu coupé foofu. Mhm. am beneen réseau boo xam ne si si même moment bi. Mhm. réseau moom boobu la ñuy la doxal. Mhm. ñu en attendant ñu dépanner comme ça ñi paanoon sax ñoom du ñu xam ni paan nañu parce que pourtant paan nañu. loolu yëpp xaas bu bare la jur nag. boo xam ne Senelec dafa dugal. si réseau bi. mu amélioration de qualité boo xam ni moo nu tax ñu ni léegi ñun nekk nañu à l'aise pour dellu si. si techniquement qualité de service. si weneen wat gi. côté ñun bi ñuy ñëw fii peut-être que ne rek ay 700000 clients 800000 léegi ñoo ngi si 1 million wala 500 ñoo ngi jot 2 millions de clients développé nañu réseau bi def nañu lépp loo xam ne war nañ ko ba courant bi client bu bugg am courant si Senelec mën na am compteur yi doy na fépp fu nu toll. Euh, système informatique bi changé nañu ko te am na yoo xam ne sax ma ngi waaj nit ñi gisaguñu ko. mais d'ici quelque temps lu bare li nga xam ne nit ñi daan ko gis ci bitim réew mi yu yu moderne ay mm. compteur intelligent ay gis nañ compteur woyofal yooyu yëpp Senelec mébét na ko depuis plusieurs années jënd na li tax ñu war ko def mm. def na équipe yi fay na xaalis bi te ñoo ngi ci def te bala ñuy génn fii nit ñi daanu ko gis. loolu daal moo tax. Senelec léegi nekk na à l'aise pour wax ak nit ñi. léegi nag ñu ne léegi lan daan def suñu aada. nga xam ne bu ñu xoolee bu ñu togloo ba jublu si jamono yi. nga xam ne jamono tàngaay lay nekk. changement comportement yi day ñëw. kenn ku nekk ku daan fay facture dix mille jekk bi ak mu ne quinze mille vingt mille trente mille wala du ko ëpp. te doo xam lan la. ñu léegi ñu duñu xoo duñu xaar ba loolu am. léegi nañu wax nit ñi expliquer lu tax loolu nar a am. bu fekkee ni li leen di wax nii ñoom defuñu ko loolu lu bees la si li approche Euh, bi Senelec di communiquer. waaw moo tax léegi commencé léegi daa gis ay techniciens yi ingénieurs yu ñëw si émission yeneen yi ñëw. kenn ku ne spécialiste la si domaine ni loo ko laaj mu wax la ko. ñu tontu la waaw pour notal kii. waaw loolu tax ñu dellu si waat. d' accord euh, foofu sax xam naa ci biir euh, émission bi laata boobu dafa am benn question d' actualité. mooy jamono ji nga xamee ne njiit réew mi président de la république jël na ay mesures mesures yi nga xam ne dafa bëgg a taxawu ñi ñi ne seen loxo jotul seen i gannaaw ci wàllu nag mbas mi ñu nekk ne ñu ñi ñuy dippee tranche sociale euh, dafa am seen bimestre boo xam ne benn wala ñaar ñoom duñu ko fay dañuy laaj loolu naka ngeen ko gérer ak bi ngeen ko gérer ban résultat ngeen ci am laataa ñuy dikk ci xëy na yi ci nekk. voilà euh, jërëjëf loolu lu mu si tontu c'est que ñu expliquer ni décision président la République moo ko jël. Hmm. président de la mu jël ko mooy dafa dañu gis ni Covid 19 bi bi mu commencé nit ñi dañu war a toog seen kër. Hmm. nit ñi bu ñu toogee seen kër duñu mën a liggéey xëy na li ñu doon am duñu ko am benn te aussi bëgguñu nit ñi di ñëw seen Senelec wala ñu dem sd e wala feneen di fay donc comme ñi nga xam ne tàmmuñu fay si réseaux sociaux wala leneen il faut ñu am pexe pour que ñooñu bañati jóg mu ne léegi man sama bopp jël naa ñi nga xam ne boo leen xoolee si ñi ëpp si réew mi bu ñu jotee seen facture dañuy dem seen Senelec fay ñi nga xam ne seen facture amuñu doole parce que simplement ay góorgóorlu lañu yoo xam ne bu ñu jógee amuñu seen facture yu barewul ñooñu mën naa leen fayal. Hmm. lu toog ñaari weer nga xam daanu toog du nu ñoom du nu bougé mën nañ toog seen kër bu nu amee lu nu dundee parce que simplement Senelec état bi fay na leen seen courant. Hmm. loolu la ñuy wax tranche sociale. Hmm. d'abord dañuy bañ nit ñi ñëw benn ñu toog seen kër. ñaareel bi du ñu ñëpp ñi nga xam ni euh, amuñu moyen. bu ñu leen xaymaa nag ñooñu mooy ñi nga xam ni seen facture. boo ko jëlee si ñaari weer. facture bi ëppul vingt cinq mille vingt six mi ñoom état bi te du léegi léegi lañu koy door a décider c'est-à-dire boo demee si client wu Sénégal yi ni li ñu ko teqalee mm-hmm. dafa am client yoo xam ne amu joolee ñoo xam vraiment ñoo gën a tuuti mm-hmm. ñooy mooy ñi nga xam ne seen facture matul 15000 si mm-hmm. facture yi ñun buñ la xoolee rek xam ban classe nga bokk bu su fekkee ne sa facture warul mat mille si 60 jours yow si ñi gën a tuuti nga bokk soo bokk soo su fekkee dem na ba cinq 25 26 27000 yaa ngi bokk si ñi nga xam ne noonu doole bu ëppee loolu nag bu boobaa dañ lay boole si nga xam ni war nga am kàttan pour fay non seulement da ngay fay sa facture mais même taxe yi sax da ngay fay ala ko ñi lañ du ñu fay taxe benn tax lan dul fay même en temps normal ñoom du ñu fay taxe l'état bi daf leen ko dindal gi dimbali leen te loolu ay milliards la par weer loolu nag bu ñu ko xoolee ñu xool leen ñooñu nga xam ne ñooy ñi nga xam ñooy néew doole ak ñi amul dara ay 1 million 200 euh, mille environ la woon si client mhm. mu am 480 mille environ si clients yoo xam ni dañuy jot facture. ak cinq cent et mille yoo xam ni ñoom ay ay woyofal lañu mooy ñi nga xam ni ñoo ngi si woyofal bi dara. léegi état bi ni Senelec ñi nga xam ni jot dañuy jot facture fayal leen seen facture. fayal leen seen facture yi nga xam ni mois de mars ah jot nañu seen facture xam nañ lu ñuy fay mois d' avril. jot nañu seen facture war jotawuñu ko mais Senelec xam ne seen facture ñaata la xayma leen ka bu ñëwee ngeen fay ko képp koo xam ni déggu ko wala rëcc na ko mu ñëw fay bis bu beneen facture am ñëwoo li mu naroon fay si weer bi na nga ko remboursé si facture bi ñëw loolu defal nañu ko ñëpp si nga xam ñoo jot facture ñu ni léegi ñi nga xam fal la lañu bu leen xaymaa ba nga xam ne ñoom xam na parce que wayfal da ngay jënd ba pare door a consommer mhm. kenn du mën a xam yow li nga jënd est-ce que si ñaari weer la ñetti weer la ñeenti parce que yaay seet bu fekkee da nga tukki wala dara mhm. li nga jënd weer bi mën na toog ñeenti weer mhm. su fekkee ni yow da am ay gan li nga jënd weer bi mën na am fukki fan ak juróom ba ay xayma la quoi mhm. parce que waaye falak bokkul ak kële nga xam ni day enregistré ba pare léegi bu ñu ko compté ñoom ñu ni léegi ñoom seet fag ñi nga xam li muy méngool mooy ñi nga xam ne dañuy jëndi environ 17000 francs crédit te 500 quelques mille clients yépp kenn ku nekk dañ la ubbil benn buntu boo xam ni boo ñëwee foo mënti dem fu ñuy jaay woyofal si mois de mais bi. Mhm. jox nañ la valeur bu 17000 francs crédit. si client yooyu ñuy wax. te loolu def nañ ko mu jeex tàkk. Mhm. boo ko boolee muy 15 milliards 500 millions yi c'est état bi décidé woon ni moom lay fayal nii mhm. pour mois boobu parce que état bi waxul day fay pour toujours. waaw day wax pour période. deux mois yi foofu sax bëgg nañ ci xam lu leer parce que euh, bañ ko waxee ñu ci bari jàpp nañ ne diirug euh, pandémie bi yëpp la feebaru mbas bi. fan la yem. fan moom seen communication leeroon na parce que dafa ni déjà pour que nit ñi toog seen kër pendant deux mois. Mhm. donc damay fayal kenn ku nekk facture bi nga xam moom ngay fay nga mën a toog deux mois parce que facture yi par deux mois lay fay. Mhm. donc loolu la toog ba léegi donc deux mois c'est-à-dire mois de ñi nga xam ne seen facture mois de mars la. Mhm. fay na leen mars ak consommation avril. ñi nga xam ne avril la. fay na leen avril la consommation de mai donc à partir de ce moment léegi amul beneen fay bu ñëw kenn ku nekk boo jotee sa facture da ñëw fay. waaw di nga ñëw fay kon boobu leer na dafa am laaj bu ñu ci bëri di laaj mooy wàllu édifice public yi. Hmm. di ci mel ni jàkkee ci ni mel ndax ci tranche social bi la ñu bokk. déedéet parce que tranche sociale bu ñu koy wax ay kër la. Hmm. ñi nga xam ne du ñu jóg di fay. Hmm. xam nga jàkkee yi moom kenn dëkku fa nit ñi bon ña fa dëkk ñi nga xam ne kenn ku ne am na ñoo am moyen am na ñu am moyen am na ñoo xam ne ñooy fayal jàkka yi mhm. ñooñu tout ce qui est boo xam ne du foo xam ne nit a fa dëkk daal mhm. kooku bokk ci jàkka ak église ak stade ak yëpp si yëpp yooyu moom bokkuñu si li ñuy wax transsocial. Mhm. social domestique moo tax ñuy wax. moo tax ñuy wax leer na dañuy ñëw ci wàllu nag euh, économie énergie bi nga daal di tudd sànq bi ngay def wàllu introduction bi ñuy fàttali ne nag kii di secrétaire général bu Senelec di Moussa Dieye mooy suñu invité tey jii euh, ci émission pencum euh, Senelec jamono tàngoor tudd nga ko sànq ci la ñu jëm ñu gis ne nag yu ci bëri ci facture dafay yéeg ba askan wi sax léeg-léeg. Euh, ñu génn ku ci ne di yëglu ndax mën nga ci dellu si ndax fa la ñu tombé nii jamono ji. waaw naa si waxta peut-être du ma si sore tuuti parce que li ma la waxoon sànq. xam nga dañuy am émission yeneen yu ñëw. waaw nga xam ne spécialiste ñoo ñëw. Mhm. dugg si bu baax si xóot si. Mhm. mais li ma ci wax mooy jamono yu nekk d'abord wax nga dëgg jamono tàngaay la mhm. non seulement jamono tàngaay la mais jamono Covid 19 la nga xam ne nit ñi ñoo ngi seen kër. même bu tàngul sax nit ñi ngi seen kër. léegi nit ñi bu nekkee seen kër benn. nga xam ne yow liggéey woo consommation bi sa kër. heure bu nga fa nekk yaa ngi consommé bu kenn nekkul si kër gi day tëj fay lépp ñëpp ñu dem amul consommation mhm. mais déjà nit ñi lu ñu gën a bare si kër gi consommation bi day yokk benn ñaareel bi mu tàng bu tàngee eh, da ngay soxla ndox bu sedd da ngay soxla ventilateur ñu am climatiseur soxla climatiseur ah mhm. bu tàngee nit ñi du nu teel a tëdd télé yi nga waroon fay dix neuf heures. Mm-hmm. vingt yi dañuy gën yokk. Mm-hmm. bu tàngee comme heure bi Covid dix école yi école nu liggéeyatuñu étudiants yeeg ñëpp ngi si kër yi ñoo ngi seetaan télé film yi ñi yore seen seen réseaux sociaux donc appareil électronique yi. Mm-hmm. Euh, ni ñu leen di utiliser mën naa wax ni fi ñu toll nii ëpp na genn benn yoon ak genn wal wala ñaari yoon. si li ñu daan utiliser sans Covid dix neuf. déjà parce que nit ñaa ngi seen kër yi. boole si nag tàngaay bi ñëw. bu loolu amee ne courant bi nag ni ñu koy ni ñu koy jaayee Senelec nit ñi dañ ko war a xam parce que courant bi du njëg boo xam ni kilo bu nekk njëg lay jar li ma la wax léegi boo boo boo jënd prix bi mu ngi dépendre si jaw ñaata ngay ñaata ñaata ngay nag si social nga bëgg nga bokk wala bokkoo si social maanaam suñu la nee yow bu fekkee ni bokkoo social prix bi cent franc ngay jar boo lakkee lu ëpp social bi prix bi dana koy yokk te li si yokk da ngay fay taxe donc non seulement yow sax li ngay lakk yokku na mais li ci yokku mhm. dana jar presque euh, benn yoon ak euh, genn wal si prime par rapport li li li li nekkoon loolu nag boo leen boolee moo tax nit ñi war a def attention mhm. booy gis facture yi toujours au mois de juillet août septembre day indi coow lu bare bare bare mhm. parce que ñi ngi wax woy courant bi compteur yi te pourtant compteur bu doon tourner foofu moo doon tourner juillet moo doon tourner janvier moo doon tourner truc te facture bu la jox boo jëlee facture bi nga dem si compteur bi bu fekkee yow facture ngay jot daa gis index bi si facture bi xam ne yow kat liñ la bindal moom moo nekk si compteur bi wala lu ko ëpp buy woyefal boo jëndee sa woyefal nga toog ñu coupé courant bi boo ñëwee da ngay gis woyefal bi du tourné boo xoolee crédit bi nekk si woyefal bi benn 15 du si dindi la nga jënd woon bu fekkee ni coupé nañu courant bi nga dellu siwaat xool est-ce que la ma amoon ba nu ñuy la ma jëndoon bala ñuy coupé moom laa am ba léegi. loolu nga koy fekk. Mhm. donc du affaire compteur wala dara affaire comportement la. Mhm. léegi yi daan suñu wax mais vraiment il faut que am na ay conseils yu ñuy joxe. waaw étant donné que ñàkk consommation boobu moom mënul nekk donte tàngaay la ñu nekk nit ñaa ngi confine et cetera lan la ñu war a mën a def ci jëfandiku ci wàllu consommation ba mu wàññi leen au moins euh, factures yu tàng yooyu. waaw léegi lu lu ëpp si kër yi léegi bu ñu xoolee ñun suñu réew yi euh, mooy frigo yi. Mhm. frigo yi mooy ëpp si consommation man naa facture bu nekk. fri frigo yi nit ñi am mën naan wax genn wàllu facture bi moom la. Mhm. boo jëndee genn wàll bi beneen bi stop mooy tele yi. frigo yi d'abord parce que ndox mi yow doo am fooy naanee ndox si frigo bi ngay naan ndox frigo yi presque mooy mooy ndaayi léegi nit ñi dañuy dem di ubbi naan te ñaan mm-hmm. mm-hmm. yooyu dafay yokk consommation bu bare bare bare frigo bu fekk frigo yi duñ leen duñ leen tànn tànn bu baax seen moteurs yi dafay nekk moteurs yoo xam ne day xëy na bokkul ak moteurs yu mujj yi mm-hmm. eh, doo leen nettoyer ñu am ay givre am na ñoo xam ne seen frigo heure bu nag ñu ñu coupé ko yaakaar dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy économiser frigo yow boo boo jëlee sa frigo nga ñëw nga ñëw supposons nga couper ka goti hmm. heure bi mu seddee nga couper waaw nga xaar bu mu tàng nga bëgg mu sedd te frigo bi dafa ludul jël tàngaay bi si biir génn ki si biti mais fi mu ngay génn gën a tàng hmm. loolu fu mu waroon def une heure cinq heures la fay def. waa ah, waaw loolu war na leer moom parce que ba gis naa ñu bari dañ koy def. mais dama ne boo fekkee ne yow frigo bi. Hmm. da war a jël tàngaay bi ci biir. pompe frigo bi dafa pomp tàngaay bi si biir génn ko si bitti parce que yaakaar ne ni si bitti moo gën a sedd yow nga yow heure bi nga xam ne si bittee gën a sedd muy par exemple guddi gi wala fajar wala dara yow nga dem couper ko frigo bi xaar ba mu tàng nga xam ne si bitti dafa tàng nga dem taal sa frigo frigo bu fekkoon ni moom war na sàddal sa ndox si deux heures du ko seddal si huit heures dana lakk courant lu mat huit heures bala mu liggéey la mu waroon si cinq heures benn ñaareel bu fekkee ni yow même couper boo ko defaree ba mu baax ba nga xam ni si guddi gi dana tàkk ba mu sedd. Mhm. jarul coupé parce que bu fekkee ni moom étanche na c'est-à-dire que tëjukaay bi baax na. seddaay bi si biir du dañ. Mhm. moo tax nit ñi waruñu jël frigo yi di lekk def naanukaay nga xam yow xale bu jóg dem ubbi mhm. naan te booy naan la ngay bunt bi naan ba pare dara tëjaat yooyu yëpp. Mm, kon yooyu courant bi nekkoon ci biir frigo bi nga xam moo téye seddaay bi. Mm. yow boo ko xasee ubbi rek courant baa ngi mm. boo ko tëjaatee il faut mu wut lu toll noonu ko si. donc frigo yi déjà loolu il faut nit ñi def si effort beneen effort bi mooy télé yi xam nga télé yi léegi léegi presque mën nañu wax ni euh, kenn mënu wax ñaata télé moom si kër yi mhm. télé bu nekk boo xoolee presque genn wala frigo la wala kaaru mhm. frigo mhm. en tout cas euh, les boo jëlee ba ñaari télé mooy benn frigo yow boo nekkee sa kër def sa cinq télé kenn ku nekk am sa film am sa am sa canal horizon ñi nekk Netflix ñi nekk truc yooyu yëpp dafay da nga koy combiner mu nekk peut-être gi boo xoolee ay fukki frigo moo fa Mhm. boo leen di def ko mu lu mel ne frigo. waaw ah. plus appareil appareil eh, kii nu mu tuddati les téléphones euh, kii les réseaux sociaux yi am na ñoo xam ni seen chargeur c' toujours en réseaux sociaux yi lu wut tuuti tuuti dañuy chargé chargeur boobu bul ko xeeb. bu mhm. fekkee tous les deux heures nga dem chargé sa portable. Mhm. ngeen am cinquante portable si kër gi. mais boo ko xoolee courant la te aussi kenn du tëdd c' est à dire que yow lii tàkk ak lu dul tàkk yëpp doo si fay dara donc machine yi nekk si kër gi yëpp ñoo ngi tàkk toute la journée. léegi nag boo doon consommer yow vingt cinq mille mu mu correspondre à deux cent kilowattheures ou deux cent cinquante yow boo jaax boo kiiwul rek da ngay dem cinq cent wala nga dem trois cent kilowattheures <laughs> léegi bu facture bi ñëwee du nekk trente mille wala quarante mille dafay nekk soixante quinze mille parce que yow da nga dem carrément si si tranche ñi nga xam ne mooy ñi am doole. là <laughs> dans ce euh, kon lu mooy frigo bi mën na jàpp ne matériel yi ci des yëpp war nañ leen man fay wala ñi ñu débranché leen comme ni nga expliqué. waaw mën na leen fay waaye déjà déjà ñu yaxanal parce que kër warul bu ñëpp di seetaan même film jarul kenn ku nekk nekk sa nekk di seetaan. Mhm. ñëpp mën nañu tese benn benn benn place. Mhm. seen ventilateur seetaanaloo ko ensemble muy benn télé. mais bu xale bu nekk dafay xool di seetaan aussi bu fekkee loolu nga a inquiété mooy les télé les bu ñu ko négligé de. Mhm. télé yi bare na si kër yi. nit ñi bari dañu naan sax télé yi du consommer lu bari. ba a consommer mais du consommer du consommer d'accord mais bu fekkee benn nga si am mais boo si amee ñeent juróom. nga xam ne kenn ku nekk sa kër am na xale yoo xam dañuy dañuy seetaan ba ba quatre heures du matin. mais télé boo xam ne dafay def cinquante watt ah nga consommer que vingt heures par jour. frigo bi def cent watt ah nga consommer que dix heures par jour ñoom ñaar ñoo yemle. parce que kii li mu ko ëppale na ko si jot si temps. waaw rattrapé te télé bi amul amul amul seddaay amul benn sedd télé li muy lakk moom lay lakk. moom bu seddeeg bu tàngee yëpp. Mm, moom lay lakk même lay lakk donc voilà. amul wàññiku waaw euh, ñu laal beneen pàcc ba tey euh, mooy wàllu nawet bi ñu nekk. Euh, mm-hmm. tàbbi nañ ci gis nañ sax am na diwaan yu bari tàmbale naa taw. yooyu buy faral di am incident ba ci accident yu bari sax ay poto courant yi faral di daanu yooyu dañ koy faral di nemmeeku euh, lan teg bu dafay ànd ak coupure ay coupure électricité souvent euh, ndax anticiper ngeen ci loolu lan moo indi loolu ak euh, anticiper ngeen ci solution yi ñu mën a teg bu fekkee nekka yooyu nemmeeku nañ ko waaw solution loolu problème boobu dafa am ñaari pàcc. benn pàcc bi mooy si ñun. Senelec mhm. maanaam ñu fexe ba. Mhm. poto bu daanu ñu teel ko yëg wax naa la sànq ñun am na mu léegi ay appareils yoo xam ni. Mhm. taxaw teewa euh, jaratul bu coupé courant coupé sa kër bon bu fekkee yow la courant bi coupé sa kër xëy na ñun duñu ko mën a xam ni kër diw. mais bu fekkee photo moo daanu wala wala poste moo lakk wala nga xam ne groupe courant yëpp ñoo poste la lakk am noonu appareil yu ñuy wax ni ah quartier bii kat wala. village bii kat am na problème. Mm-hmm. donc déjà ñun gagné nañu foofu temps boo xam kenn xamu ko. bu nu ko gagné aussi am na nañu équipe yoo xam ne non seulement fu nekk daf leen fa léegi ñëpp nekk suñu Dakar mais dañ leen prépositionné c'est-à-dire leen fi nga xam ne moom la ñu daan gën am ay problème xam bu problème amee ñoom daanu teel a jóg. Mm-hmm. donc ñun pour ñun Sénégal déjà préparé noonu li naan daan def si hivernage. pour que mm-hmm. suñu équipe yi ñu yokk leen. jox leen ay moyens. jox leen jumtukaay yoo xam daan gën a gaaw xam fan la panne bi nekk jox leen jumtukaay yoo xam daan ko gën a gaaw réparer. Mhm. parce que li ñu daan xam avant avant. Mhm. maintenant leneen li nga xam ne si diggatu client bi la mais ne courant mooy courant dafa dangereux courant day rey. Mhm. courant kenn ku ku la ni dama laal courant laalu ko daf ko jege. ku laal courant du ko wax. ku laal ku laal courant du ko nettale. da ngay daal di dee si saasi. léegi moo tax ñu wax nit ñi attention courant bi kenn du ko laal. parce que courant day jaar ci fil. day jaar si leneen lu dul fiir loo xam ni dafa tooy. donc bu nawet bi comme que féppay tooy. yow lépp loo xam ni taq na si courant te tooy bul ko jege. plus lépp li nit ñi yaakaar ni way man defoon naa li dugg naa fii yooyu yëpp ñi koy wax dañu xamul. mais ndax courant ku ko laal du ko nettali. donc nit ñi da am na techniciens yi daan fi ñëw joxe ay ay ay ay ay ay recommandation joxe ay indication précise yoo xam ni dañ leen wax exactement yan cas la ñuy am. mais li a wax mooy. ñun daan informé si sécurité bi nit ñi noonu bàyyi poto yi noonu bàyyi dox laal poto weñ yi yéeg poto bois yeeg poto bant yéeg poto doj yeeg yépp bu si kenn laal benn bu benn fil daanoo ñoom bu nu ko laal bu nu ko jege bu nu bu nu dimbali kenn si lu manti nekk noonu ko bàyyi woo numéro d'urgence su lekk bi ñëpp xam ne nu ko wax leen ko te lu si bare léegi sax ñun bu amee da daanu koy yëg mais nag courant comme reyam dafa gaaw bala ñuy ñëw xëy na musiba am mais daal li ñuy wax ñi nga xam ne ñoo ngi dund te gis ko ñoom bu ñu dem di dugg si loo xam ne peut-être dina leen jundal beneen musiba te loolu daan ci wax si émission yi ñoom dinañ ci wax waaye yu bari yooyu di faral di daanu ci ci ci ci ci ci ci nawet bi lan la liggéey bi moo dëgërul wala seen lan la lu tax muy accident yi di bari waaw xam nga ñun si jamono euh, Sénégal ay poto bant la noo amoon hmm. poto bant poto bant parce que presque mën naa wax ni poto ak bant aussi moo amoon moo gënoon yemamaay moo gënoon eh, yomb si ñun mais depuis quelques années Senelec décidé na gis kenn gisatul poto bant bu bees déjà poto yooyu yëpp dañu am programme boo xam ni sur trois ans dañ leen di remplacer sur trois ans kenn dootu gisati poto bant boo xam dañuy wax daanu na parce que poto yi dañu bare ay trente milliers de poto la. kenn mënu xëy def ko euh, poto yooyu de daanu nag ñaan ñaar moo si am benn dëkk dëkk yi ñu nekk dafay max. te max yi day lekk poto comme ni muy lekk garab te bu koy lekk yow doo ko xam da gis poto bi ni ñum mais dara nekk si suuf day jekk ba saag mu ngelaw rek poto bi daan mm-hmm. bu daanoo ànd ak ay moromam yóbbaale leen loolu nag ñun xayma nañu ko ba xam à peu près fan lay am fan la faral di am mais xamuñu fan lay am mm-hmm. mais loolu li wóor mooy tey ji fi nu nekk mooy bu amee fenn mm-hmm. temps ban daan def ñu wax dëkk bi toog na ñaari semaine ñetti semaine di di di di di di di amul courant loolu moom incha allah kenn waratu ko gis léegi parce que équipe yaa ngi fi buy am ñu koy yëg te bu ñu koy remplacer oti poto daanu lu ñu koy remplacer loolu mhm. programme boo xam ne ficelé noonu ko ba pare génne noonu xaalis bi te ñoo ngi ciy def waaw loolu bëggoon naa la ko laaj sax waaye daa mel ni indi nga ci tontu mooy yéex intervention bi léeg-léeg bu fekkee dara am na dañuy gis ne ay effort yéen a ngi koy def ci surtout ñu woo leen ngeen ne nangam moo xew waaye pour intervenir jékki rek defar ko yëf yi dellu siwaat dafay xaw am ay yéex yéex loolu nemmeeku nañ ko euh, laaj ba tey euh, mooy li nga xam ne nag mooy jafe-jafe ngir ñu daldi nag euh, jot waa lag ci wàllu téléphone jékki woo ki nga bëgg a woo ne ko nangam am na fii léeg-léeg dafay jafe loolu ndax tamit euh, xalaat ngeen ci. waaw xam nga waa Senelec ñun sunu sunu communication client bi bu fekkee ni panne la am wala loo xam ne daf ka daf daf si courant bi li ñuy joxe courant bi li ñuy wax service client bi jotoo courant am nga amoo tension wala des trucs comme ça dañoo am centre d'appel boo xam ne kenn benn numéro kese la jaru ngay woo yëpp Senelec boobu rek ngay woo le 833 867 66 66 boo xoolee sa ubbee sa facture daa gis gannaaw ñooñu boo leen woowee centre d'appel la xëy na daan la wax xaaral tuuti parce que ñëpp foofu la ñuy hmm. mais doo fa yàgg hmm. te ñooñu bu ñu ko jotee hmm. non seulement daan la laaj li la war a laaj nga xam ne bu ñuy jëm bu ñuy ñëw sa kër doo réer parce que ñun il faut nga xam fi nga dëkk euh, te ñi kas que ñiy dépanner bokkul ak ñiy relever du ñuy question yi ñu lay laaj pour xam fi nga dëkk bokkul ak kiy relever nga xam ne dafa yore facture xam lan lan immédiatement bu ñu ko jotee du ñu ko denc. Mhm. ñoom dañu am connexion directe benn ligne boo xam ne ñoom seen bopp ñoo ngi ci système Senelec. ñoom ñooy bind ni diw. Mhm. tudd diw dëkk fii ak fii ak fii adresse bi joxe loo xam ne kenn ki fay def mënul réer. Mhm. nee na paan na lii moo tax mu paan lii moo tax mu paan. bu boobaa équipe yi ñoom it du ñu ñëw Senelec di ko jël si. parce que fu ñu ko bindee foofu ñoom dañu koy jot directement. ah léegi nag ñu intervenir temps boobu moom fi ñu toll nii mën nañu wax ni lii ëpp ci li di bu lul catastrophe boo xam ni ngelaw li am na ñëpp paanandoo mhm. ñoo ngi toll si environ deux heures mhm. deux heures mhm. te boo demee même eh, yenn dëkk yi seen heures yi ay quatre heures cinq heures huit heures mooy ak heure normale mais ñun fi ñu toll nii Senelec ñoo ngi si deux heures bu fekkee ni dara amul boo waxee Senelec dara en deux heures daan ñëw dépanner la maintenant nag mu des léegi bu fekkee quartier bi lépp moo paan quartier lépp moo paan ñun daanu ko yegal suñu bopp mais le problème même kon jarul nga koy wax yow bu fekkee yow paan nga sa morom paan sa quartier bi bu paan yebul nga téléphoné parce que ça quartier bi mu courant mais quartier boobu nag bu fekkee câble nekk suuf moo dagg nga gas remplacer yooyu nag mooy xaw jël temps tuuti te même yooyu sax boo ko xoolee nag di si ni euh, en tout cas demul ak dara li ñu daan dafa am paan bu ngeen am rek nañ koy gis beneen bi mooy wàllu ba tey ci wàllu lu électricité bi euh, dafa am beneen façon bi ñuy wax EDR euh, e yi mooy électri électricité du RIP. Mmh. Euh, mooy barabu Kaolack jëm ko Fatick kon jëm Gossas ak Nioro. Mmh. ñooñu ñaxtu nañu fii ci suñu antenne yi. lañu wax mooy seen courant seen genre facturation dafa dafa cher ndax trois cent dix francs la ñu wax ne daal kilowatt heure bi moom la ñuy fay loolu ndax waa Senelec am nañ ci explication waaw am na sa explication parce que xam nga euh, euh, Sénégal ni ñu ko ni ñu ko séddalee. Mhm. depuis 2000. Mhm. Sénélec dafa am ay dëkk moo moom dëkku dëkku taax yi. ak lenn si dëkk dëkku kaw yi. Mhm. Sénélec moo leen di jox facture ñuy fay Sénélec. ñeneen ñi. ñu mel na Sénélec ñu nu tuddi concessionnaire. xam ni ñoom dañu am contrat ak état bi. ñoom ñooy jël seen ñoom ñooy defal seen réseau. ñoom ñooy def seen branchement. ñoom ñooy def lépp ñëw si Sénélec jënd courant bi suñu. en gros. suñ ko jëndee en gros. ñu jaay leen ko ñoom ñu jaay ko ñooñu. Hmm, ñu jaay ko ñooñu. ñu jaay ko ñooñu bu ñuy fay ñii la ñuy fay ñooñu la ñuy fay duñ ñu fay. Hmm. ñun xamuñu leen sax. Hmm. si si client wala dara ñun ko xam. mooy dëkk bu nekk am na benn compteur boo fa nekk. compteur bi mooy ka di jaay courant. ñun si compteur boobu la ñu koy jaay courant. li nekk si gannaaw compteur bi ñaata nit ñoo koy fay ak ñaata la koy jaayee moom tarif boo xam ni diggante moom la ak gouvernement bi et Euh, CRSE ñoom ñooy définir ban tarif la mais mën naa si yokk ni coow loolu ñu doon wax xëy na si gannaaw la woon yàgg na mais gouvernement bi si at mi si fin d'année bi décidé na que ni léegi Sénégal ñëpp a yem lu ñuy fay. waaw ñëpp dem ci même bu fekkee ñooñu Sénégal yooyu même ñooñu ñooñu sax gouvernement bi des na leen ni ñi leen jaay courant. Mhm. seen jaay bu mu bàyyeete bu mu paaseete li di Sénégal di jaay mhm. dëkk kawam yi. bu manqué dara man maa koy jël en charge. kon seen ñaxtu léegi mu jeex. c'est fini kooku c'est déjà décidé c'est l'état <laughs> état bi mooy jël différence bi. waaw voilà waaw beneen coow la. Euh, gars bi ñuy déggee li nga xam ne mooy bande annonce bi ñu bëggoon cee am leeral mooy askan wi faree ja nee nañu waa Sénélec ñoo fa bëgg jaarale ab haute tension léegi haute tension yi ñu ne woon béykat ya fa ne euh, dañ leen di indemniser waaye dem nañ bay waaj a commencer liggéey bi daal am ñu wax ne ñoom amuñu. waaw ñee na ñoom jotuñu seen indemnité léegi nag ba ñu ne woon sax mbir mi demoon na ba yoon commencé ciy dox ndax mbir moom itam yéen yéen yéen a ngi ci. waaw bon précisément panja bi moom peut-être mënuma si wax léegi mais li ma leen wax mooy. xam nga Senelec moom. Mm-hmm. amul yoon amul droit. Mm-hmm. ñëw fekk tollu jàmbur. Mm-hmm. mu def ko mu def réseau te ndam deful ndàmpaay. te mënu ko. ndàmpaay boobu nag. dafa yoon dafa tëral nu muy demee. ndax mhm. am commission boo xam ni. dëkk boo dem. Mhm. bu Senelec di waaj a defal courant bi. Mhm. dafay ñëw kat gis préfet. gis gouverneur gis autorité yépp ni leen kat. fii bëgg naa fi jaaral courant boo xam ni fii lay jaar mu am plan bu leer. waaw ñu xool si plan bi kan moo fa dëkk. lan nga am. est-ce que yaa moom. est-ce que firnde nga ni yaa moom yooyu yépp ñu xool ko. ñun nag kii après ñu def commission de de négociation. Mhm. commission bi ñooñu di wax dañ siy bokk. Mhm. préfet yi bokk si. Mhm. Euh, administration bi bokk si Senelec bokk si. ñuy wax ba juboo kenn ku nekk li nga fa def ak li nu gisal suñu bët ñaata lañ ko fay. ñu signé ñu signé ñu xayma ko. ñu xayma ko signé ko si kayit. ah ñu lu tuddee impense. loolu bu ñu ko xasee jox Senelec Senelec mënu ko bañ a fay. c'est-à-dire que nit ñi war noon xam ne aussi état bi manul décider ni Senelec fii fii ngeen di jaar man maa ko moom. parce mais kii moom moo koy jariñoo fii ñu toll te daf na si doole yow Senelec bala nga fiy teg si lii ña nga fay waaj lii mais ñun mën ñu ko dindi parce que ñun déjà bu ñu koy bugg dindi du ñooñu la ñuy amal affaire état bi la ñuy amal affaire maintenant procédure mooy bu nu ko xasee tracé mais il faut indi ko Senelec Senelec génn xaalis bi sécuriser xaalis bi d'autant que ñooñu bu fekkoon ne ñoo xam dañuy amee compte bancaire nga xam bu la ko waxee nga viré leen mu jeex mais am na si ñoo xam da leen di woo ñu toog ay 3 mois du ñu ñëw am ñoo xam da nga leen di wër pour fay leen

bu fekkee ñoo ngi si liste bi. Mhm. boo watul seen xaalis génn na ba nekk si benn kees goo xam ne mhm. ñun sa mu ñuy coûter sax xaalis pour ñu denc ko. Mhm. jël li leen war a jox ñu jox leen ko jarul coow. d'accord euh, Alioune Badara ñu fàtte ne fekk fukki simili ñu daal di ubbi antenne bi ngir ñiy daal di nag intervenir ñu joxe ci seen xalaat euh, Moussa Dieye ñu daal di ñëw ci jamono ji ba tey ak euh, entreprise yu bëri ñi artisans yi gis nañ ne daal fa ñuy faral di samp seeni barab soit ay fil jaar ci suuf wala anam bañ koy defee yoo xam ne daal risque daf ciy ne. mbir moomu kan mooy responsable Sénélec état wala population bi ak loolu ban liggéey ngeen ciy def pour mu dañ parce que danger bu permanent la. waaw xam nga boo xoolee liggéeyu Sénélec moom la ñuy wax concession de distribution énergie c'est-à-dire état bi daf ñu jox ñun Sénélec sant naa leen liggéey boo xam ni. fexe leen ba courant bi yegg si ñi ko soxla. dafa leen ay machines yu koy defar dafa leen ay fil muy fil yi si kaw wala fil suuf ba mu yegg si nit ñi jaay leen leen courant bi si bii ma leen wax. loolu mooy suñu liggéey ñun su 30 ans. 30 ans yooyu defaraat beneen contrat. mais ci loolu. yeneen seen bi ñu wax ne yóbbul leen nit ñi courant bi seen kër. moo nu mooy droit ñun comme que bi mënul naaw mënul nekk si kaw nii il faut mu am fu mu jaar. Mhm. mu mu nga xam ne man maa ko moom. Mm. du titre foncier kenn. Mm. man maa fi nga xam ne daal du titre foncier du leneen. naa leen Senelec. Mm. ngeen jaarale fa seen courant. bu ngeen bugg samp photo da fay samp. Mhm. bu ngeen bugg tirer photo da lépp mu ñu jox ñu ko de droit duñu ko laaj. mais bu ñuy ñëw aussi mënuñu ñëw foo xam ne dañu fekk ko fa tabax boutique ñu ni ko waaw yow si mbedd nga tabax bu dañu jaar si suuf déedéet. Mhm. donc fépp fu ñu tabax suñu photo mhm. wala suñu suñu câble. ba nu koy tabax kenn nekk ko fa. kenn nekk ko fa maintenant nit ñi dañuy def da ngay ñëw dem si commune wala nga dem si autorité yi ñu may la ka nga ñëw samp sa boutique commencé daaj. booy daaj aussi. dangay xam ni courant bi si suuf lay jaar ndox mi si suuf lay jaar téléphone bi si du ñun rek. ñenn ñi yëpp kenn ku nekk autorisation bi ñu am ñoom la ñu am. bu fekkoon ni xamoo ko sax ngay gas ba si nga gis benn grillage bu xonq wala bu grillage bu vert nga xam ne lii bokkul si suuf si. nga taxaw dam laajte mais bu fekkee yow da nga ko fa bàyyi di wax lii lii mbalit la rek bu du suulaale nga commencé tout mais boo watul non seulement yow da ngay yàqal ñëpp parce que boo xasee ba laal câble bi quartier bi courant boobu ñoom ñëpp doot ñoo am courant ba non remplacé ñu léeg liggéeyul ñaareel bi yow sa bopp sa bakkan xaj na si donc li ñu wax nit ñi am na foo xam ne bala nga fay def da ngay def autorisation te aussi autorisation da ngay ñëw yëgale Sénélec. Mhm. yëgale ni waaw ma lii lii laay def ak lii surtout bu fekkee yaa ngi bëgg gas yoo xam ni. dana passé ay cinquante centimètres soixante centimètres kenn xamul lu nekk si suuf. Mhm. loolu am na accident yu bare yuy am surtout si tabaski bi di ñëw tabaski si lu nuy ëpp. accident parce que ñi yaay xar yëpp yaakaar na nañu seen piki yi ñuy taaji xar yeeg nag yi. Mhm. mais fu leen neex daaj. mais booy daaj da ngay yem si kaabu kaabu boo xam 30 000 volts lay nekk. boo nee ni teel rek muy ni teel. après ñun waa ji rey noonu ko Senelec rey noonu ko alors que Senelec rey ko moom yëgul ni sax yow yaa ngi woon daaj mais yow mi doon daaj yaa war a xool est fii wala nga def nànk wala nga takk ko si benn bant wala leneen mais yooyu am na accident yu bare yoo xam ne day ñëw te nga xam ni duñ ko yëg sax mhm. te pourtant bu amee aussi day yàqal ñu bare ñoo xam ni ñoom ñoo ngi si leneen te pourtant ñun la ñuy wax ñoo ko yàq effectivement waaw euh, beneen bi mooy affaire bala ñuy ubbi bi électrification dëkk yi nga xam ne mooy dëkku kaw yi ñuy village yi gis nañ ne directeur général bu Senelec bu yàggul amal na ay euh, mise en service village yu bari yu ñu nemmeeku programme boobu euh, fan ngeen ci toll ak ndax objectif bi ngeen wax ne moom ngeen bëgg mooy fii ak 2025 euh, mu yemb ci Sénégal ndax objectif boobu di ngeen ko atteindre objectif boobu déjà il faut mu préciser que ne objectif gouvernement bi la gouvernement bi moo ni moom 2025 ah. <laughs> Sénégalais yëpp ay courant waaw <laughs> donc ñu nag keneen na si yem kenn ku nekk moom du ñoom du seetaan nit ñi bañ a am courant mhm. donc ñun suñu wàll mhm. mooy si nga xam ne moom la ñuy gérer maa ngi lay ker sànq ni am na ñoo xam ne ñeneen ña koy gérer ñoo xam dana am concession comme ñun waaw kenn ku nekk mhm. sa wàll ba nga nekk jël nga sa pàcc yaa ngi def sa programme di wax ak gouvernement bi si financement bi si loolu nga gis Senelec si accès universel ñu am ñun su programme d'accès universel boo xam ne ay dëkk yi nga xam ne ñoo ngi si li ñu jox ñun ñooñu incha allah ñoo ngi liggéey pour que ñoo am courant avant 2025 mhm. waaw daanu fa yóbbu courant daanu fa yóbbu compteur daanu fa yóbbu ay agence daanu fa yóbbu lépp ñeneen ñi aussi ñoom programme yi am Senelec ñoom am nañu yu mel noonu parce que ASER moom moo koy gérer ASER aussi de la même façon ma ngi def ay village nga xam ni bëgg nañu avant 2025 réew mi yëpp am courant comme ni ko gouvernement waxee. Mhm. waaw yan pro actuellement yan programme la teg yoo xam ne daal mën nañu ne yii buñ ko doxalee ni mu waree. Euh, objectif boobu état bi wax dinañ ko mën a dinañ ko mën a. waaw xam nga loolu nag dafa bare parce que ñun déjà boo gisee li DG directeur général Sénélec doon inauguré temps yi lu ñuy wax ay 400 villages la. Mm-hmm. Sénégal ay Sénégal ay milliers de villages. Mm-hmm. ay milliers milliers de villages. la mm-hmm. la du mënuma leen citer yëpp fii mais lu wóor. mooy yaakaar naa 2025. ku taxaw ni aw ma courant daal. da nga ñu jaaxal. parce que même bu fekkee ni yow kese nga sax si benn kii. am nañu système boo xam ne yow sa kese daa am courant. am na système bi dafa xaw bare am na système boo xam dañ lay lonk si réseau bi am sa boo xam dañ defal groupe mm. am système boo xam dañ defal solaire am mm. da ba am système boo mm-hmm. ah, xam yow ñaar ngeen wala ñett mm. wut doonu système boo xam yéen ñett yooyu daa ngeen am courant si seen kër foofu waaw yooyu ko si système la bokk d'accord euh, am na benn coow bu mag jëm ci wàllu matériel yi faral di lakk Euh, bu jamono coupure yu tegaloo amee nit ñi di ko faral muy télé yi frigo yi ak yeneen xam naa mooy doon question mucc bi soose laataa ñu ubbi antenne bi ñu ci bari ngir ñu jot seen remboursement wala ngir rek ñu daal leen defaral seeni rek euh, constat ba pare delloo leen xaalis bi wala seen matériel leen ñu fexe ba ñu jotaat ci lu métti lay doon. mbir moomu naka ngeen di ko gérer ba souvent daal mu bari conflit waaw. ah loolu nga dëgg am na sax problème bu ñu gis. Mhm. mais d' abord loolu il faut ñu expliquer nit ñi. que Senelec si liggéey bi ñu ko jox dañ ko ni bul yàq appareil jàmm. Mhm. appareil boo yàq. Mhm. boo yàq nag laa wax xam bu yàqu de. appareil boo yàq yow Senelec na nga ko fay. moo tax Senelec comme xamul appareil yi muy yàq parce que ñun courant la liggéey te courant day yàq appareil. Mm-hmm. ça dépend si nan lay ñëwee appareil bi ñu mel. Mm-hmm. ñun at mu nekk dañuy joxe ay plusieurs millions yoo xam dañu koy déjà bala ñuy bala at mi di commencé dañ dem fay ko assurance. Mm-hmm. nekk ñun ku ñu yàqal rek na nga ku ñu yàqal moo bu ñëw si ñun ñu xool ni ñun kat kër gi bis bi nga wax ak heure bi nga wax ñun am na lu xam si xew si réseau boo xam ne xam nañu ko te yaakaar na nañu ñun mën na am ñu ñoo ko yàq mhm. Senelec day bind rek ni yaaw assurance bi ñun d'accord nañu ñoo ko yàq bu demee foofu mhm. dañu koy fay mais nag fay boobu euh, bon euh, am na si gis nañu yoo xam dafa xaw yeex parce que assurance comme assurance auto la xam nga assurance auto bu accident tey ni suba ñu fay ma parce que assurance dañu am procédure te nit ñi des fois dañuy yàkkamti yi ñu leen di laaj pour ñu fay leen am na ñoo xam ne leen ko jaral dañuy wax ne Senelec bon du fay dara tam yoon mais ñun ñi man mii ngi di wax yow fay nanu remboursé nanu pourtant c'est pas pour xaw ma kenn fen da toog courant bi moo yàq sa courant mais nag li ñuy def léegi mooy am nañu solution informatique boo xam ni pour pour yokk pour gàttal communication bi sorte que bu client bi ñëwee ñun dossier yi ñuy jël di ko envoyé client bi muy signé def nii dafay nekk dossier électronique yoo xam ne bu ñu ko dugalee système bi day dem directement sa assureur te li ñuy wax aussi internet lañ koy ko war a bi ma am na depuis longtemps Senelec ay dizaine de lay euh, pour assurance su kii appareil client yi. mais nag du appareil bu yàqu Senelec fay. parce que yow su la neexee aussi nga courant bi ku coupé sa quartier nga dem for benn frigo teg. waaw léegi yow kon Senelec ni ñuy def ba xam ne ñoom ñoo yàq kii bi. mooy parce que dañ ñun xam nga dañu am ay enregistreur yu xam xam nga courant lu koy yàq. Hmm. appareil lu ko yàq. nga am courant boo xam ne tension bi ëpp na. Hmm. mais tension bi ñun ñoo ko yore ñun xam noonu tension bi nekk valeur bi nekk xam nañu ko te yow courant bi mënul ñëw yàq sa kër kese tëb tëb sa ki nga dendal tëb ki nekk sa gannaaw tëb si nekk sa kanam yow rek yow jom yow la yàqal loolu mënul nekk donc bu ko xoolee ba xayma ka daanu xam ni am na lu xew si réseau bi loo xam ni bu fekkee ni loolu sa kër kese la xew ça veut dire que bi gis nañu ko xam na ni yow woo nga nañu ñëw dépanne ka xam am na lu xew ñu xam ni yow mii kat sa kër la xëy na moo amoon problème wala quartier bi moo ko am bu boobaa ñun daanu am xayma pour xam ni probablement mhm. man yow yow sax mënoo ko xam mais ñun lu xewoon xam na ni loolu war na mën a yàq ko euh, appareil. boobaa dañu koy nangu rek parce que ñun duñu fay dara fay nañu ba pare. Mm-hmm. waaw kon nag euh, ñu ubbi antenne bi Alioune Badara daal di teewlu auditeurs yi am seen i nag euh, laaj ñu fàtte ne ñu ngi dalal secretaire général bu senelek di Moussa Dieye ci émission pencum Sénélec Moussa kon dañuy daal di nag wéy ba tey ci li nga xam ne nag mooy. laaj yi ñu gis ne région yi itam ñu ci bari euh, daanaka euh, li ndakaaru di am ci wàllu courant bu jam jamono yu mel nii daanaka ñu ci bari dañuy ñaxtu ne daal coupure yi daanaka ci dëkk yooyu lay gën a di bëri est loolu am na explication. waaw mooy temps yi si passé rek. xam nga loolu dafa mel ni am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko aloo waaleykum salaam sëñ bi. waaw ñu lay delloo ziar. rajo bi wala nga fay ko. xaaral ma def la ko. waaw. baax na léegi. waaw baax na la maa ngi Touba daal solo. Makhtar Sène waaw. waaw man de dama bëgg laaj seen bi benn question. mooy. comme ñoom ñoo nekk Senelec. Mm-hmm. ba xam état bi moom bu muy bu muy bu muy dimbali nit ñi ci courant bi. ndax am état bi. ba xam état bi bu muy bu muy dimbali nit ñi a woo laaj leen seen avis wala état bi rek moo jël boppam. Mm, ndax dañ leen laaj wala état bi moo jël dogal jox leen ko ñuy appliqué. ndax ndax ñoom bu ñu xoolee ñoom ci seen i seen i client. Mm-hmm. xam nga client du toog war a fay trente cinq wala quarante mille. Mm-hmm. du toog di xaar ba nga koy ba nga koy coupé. ñu mën koo fay. Mm-hmm. xam nga quatre mille huit cent yow quatre mille cent yow am na seen faj teew. Mm. ñoom ñoom waroon nañu mën a xamal état bi kat am na ñoo xam ne ñu fay plus de plus de vingt cinq mille yi ñuy wax. te ñii ay ay néew doole lañ quoi. supposons bu leen mënul may lépp sax nga xool li ñu. wàññi am li ñu leen wàññil waaw. ñu wàññi ko ñii ñu ñu di def ñu jëm ko motali. ndax ñun dañoo am cas boobu ñu dañoo foogoon ñu ne see bokk ñun suñu at yi trente cinq mille la. ñu foogoon si lañ bokk. ñoom moom ba dañu moment ngi doon laaj ñu bokk. waaw. espace bi deux jours trois jours beneen fas yi ñëwaat nekk ñaar fas yi d' accord voilà. waaw leer na kon euh, oui jërëjëf sëñ bi euh, mu daal di indi tontu kon dégg nga Moussa li mu wax mooy euh, ndax da ngeen waxtaan ak état bi ba ngeen ko ne ngeen wax ko ne ñii la ñuy jéggal seen i facture wala état bi moo ñëw rek ne leen tranche bi la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy ñooy bañ a fay bi ci des mooy li mu wax nee na ñoom ñi am ay trente cinq mille ci wàllu facture te ñoom si ay néew ji doole la ñu bokk loolu lan nga koy expliquer. waaw xam nga loolu ni ma ko expliqué woon sànq moom laay waxaat peut-être. Euh, courant bi déjà ni ñu koy jaayee xam nga euh, nit ñi ñoo néew dooleet xaaruñu ba euh, coronavirus ñu koy seet ñan ñoo néew doole ak ñu néewul doole parce que courant bi ni ñu ko tëralee nii di koy jaayee da dafa am njëg boo xam ni ñi ñu tuddee ñun ñu new doole da nga xam ne xam nañu leen si si si si si si compteur yi seen compteur ni muy doxee boo ñëwee Senelec boo jotee benn facture ñaari facture rek daanu xam fu ñu lay classé est-ce que si doole nga bokk wala si néewul doole bu dara amul. Mm-hmm. ñooñu dañu am prix boo xam ni seen prix lu ñu leen jaay courant. Mm-hmm. yemul ak ñi nga xam ni dañ leen boole si ñi ñi am doole. Mm-hmm. donc état bi bu mu décidé état bi moo décidé. ni ñi nga xam ne ba may joxe njëgu courant bi. tudde woon naa leen ñu néew doole. nga xam ne moom moom laa leen tuddee. dinañ leen tax. nga xam ne yow même bu dara amul. yow boo yow mi nga xam da ngay fay TVA 18 pour cent. ci sa facture moom du ko fay. waaw parce que TRA bi dès le départ nee na ñii man du ñu fay TVA. Mhm. man maa ko dindi. ñoo ñu xayma leen seen facture. Mhm. si mu weer bi ñu nekk nga xam ne yéen a ngi seen machine. Mhm. ñoom jot nañu seen facture ba pare. ak weer bi ñu jëm. nga xam ne ñoom jotaguñu seen facture mel ni waa yéen waa Sénégal relevé ngeen leen ba pare. xam ngeen ni facture bi ñaata ñaata lay nekk. boole leen. ngeen wax ñu ñaata la. ñu fay donc damay fay ñee ñi ñuy fay xamoon nan leen ba pare. Mm-hmm. lu ñu xamul woon mooy seen facture ñaata la. waaw léegi loolu ñun loolu rek lan def xam compter leen ñi leen ñaar la ñaata la ni état bi 15 milliards 500 la. Mm-hmm. état bi boole su wax dafa ni 15 milliards 500 yi. naa leen ko fay am ñu jël kii allo salaamaaleykum. allo waaw sëñ bi. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Euh, ñu ngi leen di ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar bu baax. alhamdulilah ñu ngi ziar Euh, di rafetlu émission bi. Mhm. di rafetlu tamit euh, waxtaan bi. jërëjëf waaw. jërëjëf ñun de dañu amoon euh, laaj. waaw mooy. mooy xam nga ñun dañoo dëkk ci banlieue bi ci dégg coow lu bari fan yii ci mbiru Sénélec. mooy. mbiru Sénélec ak càcc géeg. Mhm. ak ki léeg li fi xew ak nguuru Sénégal géeg yooyu. Mhm. gannaaw waa Sénélec ñoo teew. ñu bëggoon a laaj euh, sëñ boobu fi teew. Mhm. mbirum ak li moom. Mhm. moom lu mu ci xalaat. Mhm. ak euh, càccum courant gi ñuy wax ne euh, mën nañ ko saafara. ndax loolu am naam amul. waaw loolu de vraiment lu ñu yitteeloon la. waaw mu ngi lay tontu léegi kon. jërëjëf. jërëjëf yooyu euh, kon mu ngoog euh, Moussa Dieye euh, wax na ci contrat Akilee nee na lan nga ci xalaat ak wàllu càccum courant bi itam ñuy wax ne mën ngeen ci indi saafara saafara bi lan la. waaw xam naa peut-être question boobu lay jëkk commencé. Mhm. mooy sàcc courant bi nga xam ni. Mhm. du Sénégal rek la am. Mhm. dëkk yëpp la am surtout doon dëkku Afrique. parce que Afrique dëkk ah, dëkk sàcc bi li ko gën a indi mooy. manque adresse sa à dire te sàcc sàcc moom fokk mu am. non non sàcc ñi sàcc ñooy sàcc ñi dul sàcc kay sàcc ñu. Mm-hmm. dul sàcc ñoo ëpp foofu ñuy sàcc. waaw cest boo jëlee ñi dul sàcc. Mm-hmm. boo doon cent. Mm-hmm. mën nga wax ni quatre vingt quatre vingt yi. wala quatre vingt cinq yi ñoom duñu sàcc moom du màcc du ñàkk. waaw mm. te bu du woon loolu sax ñun duñu fi nekk parce que bu fekkee ñëppay sàcc. Mm. kon ñu fu ñuy jëlee xaalis. Mm. donc sàcc courant bi moom. yàgg na Sénélec yàgg na Sénégal yàgg na si Afrique. yàgg na si pays. sous-développé yëpp yëpp yëpp si àddina bi. Hmm. parce que ñi néew doole wala ñenn ñu am doole te xam ni réseau bi wala information complet wul ñoo si profité. Hmm. donc amul benn société directive boo xam ne amul stratégie. Hmm. amul moyen bu mu tëral. pour xeex ko. sa Senelec si la mas nekk. waaw am na stratégie boo xam ne depuis yàgg na. mën naa wax ay 2009. da ko commencé boo xam ne c' une vraie stratégie. progressive boo gisee coffre yi ngay gis. pourquoi coffre est-ce que yow dans d'ici à dix ans. parce mhm. que gis coffre. te du tableau moo amoon. effectivement waaw lu ko indi. Mhm. coffre première phase stratégie de lutte contre la fraude mooy coffre. Mhm. xuloo noonu fii lu yàgg nit ñi nit bëgguñu coffre yi dafa cher et mais coffre bu ñu ko jëlee jël compteur sa biti mais booy sàcc si biti ngay sàcc kon yow ya yow gën a gaaw jàpp que du bu ñu jëloon compteur bi dugal ko sa kanamu lal. dafa la sa sa tableau de comptage lutte ci xeexu sàcc courant bi. Mm-hmm. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne Senelec mu ngi ciy tëral si formation si def ay agence si créer agence créer ay cellules ñoo xam ñoo ngi koy def. ak mm-hmm. yeneen système informatique ba fi ñu toll nii. Mm-hmm. am na stratégie boo xam ne depuis 2011. stratégie de mise en place de conteneur intelligent la nga xam ne fi ñu toll nii si àddina fi mu tem mooy mooy stratégie société yëpp parce que intelligent intelligent mooy conteneur boo xam ne noo seulement dafa dafay natt. yow li ngay li mais boo buggee sàcc mu ni ah am na ku ma lal. Hmm. wax ko Senelec te du la tàggu. Hmm. mais ñun bu ñu ko commencé mën naa wax 2009 2010 lañ ko commencé. premier compteur intelligent Senelec yi. Hmm. boo demee Senelec daa fa fekk ay compteur intelligent yoo xam ni 2011 ñoo nga fa woon déjà. ñu commencé di ko def nànk nànk nànk nànk ba am système ba am si politique boo xam ne fi ñu toll nii. Mm-hmm. dañuy dem vers généralisation. Mm-hmm. nga xam généralisation ñëpp kay mujj am. waaw waaw euh, euh, léegi ku nekk daal ma ngi wax. Mm-hmm. comme que ñun suñu client dana am koo xam ne dafay wax ne dama far wala Sénégal laa nekk damay contre ak dana am na kuy intervenir mun du beneen kii boo xam ne loolu moo ñu indi fii. aujourd'hui lu nu bëgg si li ñuy jaayee courant bi ak ni nu koy servir. nañu si laaj question. question ak fa nu koy waxee. ak ñi xam li ñu war a wax. ak ñi yore li ñu war a wax. bu nu waxee. ñëpp xam na nañu ki dana xam ne ki ki xam ki xam wax na. fi ñu toll nii du foofu mooy suñu place foofu. <laughs> d'accord euh, soo see ñu indi auditeur bi nekk ci ligne bi 88 628 98 98 allo. waaw na nga ñu ngi fii alhamdulilah. dama laajte Senelec lu tax euh, ñi nga xam ne dañu yor contour woyofal yor atelier tailleur. Mhm. yor atelier soudeur yor atelier mécanicien. Mhm. bokkuñu si kenn te ñoom ñu bokk gën a loru ci ci ci ci nga ne li tax ñooñu bokkuñu ci. ah. waaw dafa ni lu tax bokkuñu si dimbalu gouvernement bi. waaw li ma wax war mën naa ko tontu sax. parce que gouvernement bi dafa ni kër yi lay dimbali. waaw dimbalul ku jaay ku liggéey courant di ko jaay. Mm. c'est ça parce que bu nee co compteurs yi aussi bon mm. waaw en tout cas bu ma dugg si wax jooju mais gouvernement li mu wax daal mooy ñi nga xam ni courant bi a toog seen mm. moom dafa mel ni atelier yi ak yooyu waaw atelier yi lay wax ñooñu bokk kon bitim réew 33 la 841 euh, naa la contraste bi am diggante dëkku taax yi ak kaw gi nga commencé woon ci tontu ndax mën nga cee dellu si waat ci contraste si euh, ci wàllu jëfandiku courant bi ñu jàpp ne daanaka ci ñoom euh, période yu mel nii. waaw euh, ah, si si waaw wax nga loolu li ko indi mooy xam nga ba léegi maa ngi lay wax ne dëkk poto poto bant yi. Mhm. fi ñu toll nii presque Dakar amu ko. wul yàgg yàgg yi. Mhm. te Dakar aussi dafa bëri ay bâtiment boo amoon tey tey ñi ngelaw ngelaw li bala mu yàgg si poto yi si kër yi lay jëkk daaneel. Mhm. parce que kër yi ñoo kawee ba nga xam ne ngelaw li du yegg si poto yi poto bant max yi lekk nañ ko foofu moo ëpp max mais ngelaw li aussi bu ñëwee souvent sax poteau yi si àll bi la nekk. Mhm. moo tax bu amee ngelaw lu am doole tuuti rek poteau yi nga xam ne néew na nu doon du poteau yëpp ñooy daanu nag. Mhm. boo xoolee sunu téeméeri poteau. waaw peut ñetti poteau ñooy daan wala ñaar. boo xoolee Sénégal yëpp. waaw euh, auditeur bi nekk ci ligne bi ñu jël ko allo. allo allo waaw. waaw sëñ bi naa maa ngi fi. ça va bien. alhamdulilah. alhamdulilah. waaw man nag dama doon woote pour euh, sama benn dëkk bu nekk fële Saalum. Saalum waaw nu mu tudd. waa Jigimaar. Bilimaar. waaw Jigimaar waaw. Jigimaar waaw. doo ci wax waaw Jigimaar Jigimaar nag moom dafa am plus de deux mille habitants presque trois mille habitants. Mhm. voilà te léegi ñun suñu commune bi ba léegi cinquante huit villages trois villages rek ñoo ci am courant ba léegi. trois sur cinquante huit. ah. waa ne waa trois sur cinquante huit waa. voilà trois sur cinquante huit te ñun la ñu xamul lan moo tax boobu te ñun ñu ngi à trois kilomètres ci ci ci ligne kii bi. waaw dina la ligne euh, bi. waaw. lu ne démarche bu ne def nañ ko nag fu ne dem nañ fa mais après dañu naan ñu ngi ci projet projet projet ba finalement daal. Mhm. kenn euh, bi day dem ba naax say après duñu duñu ba léegi daal suñu dëkk ba léegi mënul am courant. d' accord dina ci indi tontu xarit Dali. voilà loolu daal la ñu xamul lan moo ko waral te ñun dëkk bi yëpp. Mhm. vraiment dëkk bu ngan la du dëkk bu ndaw. Mhm. voilà ba léegi daal mënuñu fexe ba xam lan moo tax. ñun mënuñu am courant. d' accord. boobu moom dafa mel ni gaare leen fàtte quoi. Mhm. d' accord kon Moussa ñu tontu ko xam nga loolu li ma koy wax rek mooy xam nga gouvernement bi moom def na programme bu ñëppay am courant. Mhm. d'ici deux mille vingt cinq dafa ñu jox ñun ñëpp ñu nekk si secteur bi te di liggéey si joxe courant. Mhm. gouvernement bi jox ñu objectif. te ñëpp war nañu am courant. te mu ngi ñuy jàppale aussi si li liggéey boobu si wut xaalis bi koy joxe. Mhm. bàyyi munu rek dem wuti. Mhm. ñoo ngi liggéey pour jox ñu moyen pour ñu def ko. Mhm. léegi nag daf boobu aussi dafay jaar ci yoon. maanaam fi ñu toll nii am na programme boo xam ne dafa woon dañ commencé si village yoo xam ni ñoo ngi si 500 mètres de. ñoo ngi si 500 mètres réseau. ñooñu yaakaar naa jeex na. ñu jag ba saa ñun léegi ñi nga xam ne ñoo ngi si 1 kilomètre. 1 kilomètre nga xam yow fi courant bi yem. sorewoo ñooñu sax je pense que jeex na. Mhm. foraam bi mu mujj bi nga xam ne man maa ngi doon suivre bu mujj dégg mooy ñi nga xam ñoo ngi si 2 kilomètres. mais bu ñu paree deux kilomètres dañuy dem. ci trois noonu la ñuy def ba noonu la def dañu commencé ñu taq si réseau bi après et cetera encore dañuy xool aussi ñaata ne dafa dëkk. bu mhm. fekkee yow rek yaa nekk si suuf réseau bi aussi na dem kon moo naroon nekk dernier auditeur bi bu fekkee am na kenn ñu jël ko mu nekk dernier auditeur bi euh, wala kon nee na amul euh, ñu ngi ci njeextalal émission bi daanaka ñetti simili moo ñu daal di nag euh, dese. Mhm. xanaa ñu jox leen nga def li nga xam ne mooy seen kàddu bu mujj ci wooteeg Senelec ci. ponk yu bari yi nga xam ne daanaka laal nañ ko ci biir émission bi. waaw xanaa di sant rek maa ngi gis ne sunu clients yi bëgg nañu déglu te bëgg aussi déglu waxtaan wax ak wax ji nga xam ne Senelec moo koy waxal boppam. Mhm. di ko wax ak ñoom di leen xamal ni Senelec ak directeur Senelec yépp ñi nga xam ne ñooy spécialiste domaine yëpp domaine commercial domaine technique domaine yëpp kenn ku nekk dana fi am émission boo xam ni sa sa pàcc lañ koy lañ koy jagleen mhm. bu ñëwee fii daan ko annoncé képp koo xam ne am na question boo ma wax par exemple ñii di wax ay village sama mhm. dëkk fii la soloog mhm. am na directeur boo xam ni loolu rek lay toppatoo bu ñëwee dana toog boo ko waxee sa village sax presque xëy na dana la man wax sax est-ce que ban programme la war a war bokk même bu mën dugg foofu dana la wax à peu près ban groupe programme la bokk. waaw donc ça veut dire que daal Senelec engagé na programme boo xam ni. Mm-hmm. bëggu na wax nit ñi tontu leen. ci li nga xam ni ci lay liggéey. te amul te amul te amul te amul kii quoi ça werante. waaw yi nga xam day am werante nag bon euh, buñ ko si dugg. leneen li mooy bëggu nañu aussi nit ñi déglu. si mm-hmm. tegtal. Mm-hmm. yi ñu leen di jox. Mhm. pour que après si hivernage bi ñu mën a amat ñu bañati am coow yi ñu daan am. sama facture yokk na parce que dañ leen di wax loo xam ni képp ku ko def. Mhm. sa facture dana yokk. Mhm. dana yokk yokk boo xam ni. ñu nekk Sénégal daanu xam normal la mais yow da ngay yaakaar ni mënul nekk. te moo tax ñuy laaj nit ñi leen ñaan ñu déglu techniciens yi ñëw. képp ko am problème même spécifique sama frigo nii la ñoom am mën nan la wax exactement mhm. ban maladie nga moo war a am wala ban problème moo war a sa installation oh, pour que yow boo jógee foofu mhm. suba coow loolu ñu ñun ñuy daw mhm. xëy na dana wàññeeku loolu daal laay ñaan nit ñi ñëpp di leen jox l'engagement directeur général directeur Sénélec ñëpp si vraiment déglu leen di wax ak ñoom eh, parce que Sénélec comme li ma lay wax nii ñun fi ñu toll pare nañu ko bu a Guèye moo nekkoon suñu gan ci pencum Senelec euh, moom mooy secrétaire général bu Senelec ci boppam kon fii lañ koy yemalee ndax nag fii ak ñaari simili rek ñu daal di jublu ci seen émission Kaarange yoon euh, jaajëfal mbokk yi ci àndoon ak ñoom jaar jaajëfal itam Alioune Badara Socé mi ñu àndaloon ci sottandikukaay bi dig leen daje fii ak ñaari ayu bés jërë ngeen jëf ci déglu bi ak Sud FM seen rajo.